nañu doore ak l'observateur mi xëy dikk ak ñun ci scandale di coow lu amati ci baccalauréat bi bu weesoo fuite yi doon wax ci épreuve yi français ak histoire ak géographie am na leneen lu xew ca diwaanu Njaareem yéenekaay bi nañu ki nga xamante ne ji moom mooy jury 724 bu centre Mouhamadou Moustapha Mbacké bu Diourbel ay cambriolé maanaam ay samba boy ñoom ñoo dem ca këram cambriolé ko am na ay bagages yu ñu fa jël ca bagages yooyu ñu fa jël yéenekaay bi nañu bokk na ci benn ordinateur boo xamante ne ji kon épreuve orale yu anglais ca la bokk lii tax na kon ba épreuve yi tey ji ñoom élèves waxtaan ngir ñu reprendre yooyu la épreuve l' observateur ñu ko xibaar ba tey ci xibaar yum ñu wax dem na sax ba ñuy xamal ana nan la waa section recherche ak waa DIC fexe ba jàpp ay nit mu di professeur ak i élève fële fi nga xamante ne ji moo di ca Njaareem benn di benn coursier boo xam ne yéen bi nee nañu bi ñu ko tegee loxo moom moo feeñal ña des moom mooy ki leen yoole mooy ki leen jaay proviseur bu euh, lycée bu kawoon bi ñu jàpp ci mbir mi ak ñooñu Njaareem ñu romb Njaareem dem ba Touba ak les Échos mi dikk ak ñun eh, ci Abdoulaye Wade mi fa doon amal ak ngan démb yéen kaay bi nañu Wade démb ci tuba wane na ne daal dëkk ba ba léegi gaañe dañ koo safoo dugal nañ ko seen xol ci gàttal Wade jeexleegul diwaanu Touba ne ñu bari ñoom ñoo ko teertu Wade waroon dem Tiwaawoon ak Pire laata muy jàll Touba la tax demul foofee les ko xëy ñu ko leeralal benn moo bu fa demoon du fa fekkante fa ak xalifa ba Serigne Abdoul Aziz Al Amin ndax dafa jàppoon ngan ci diwaanu Kaffrine looloo daal di dàq ngan googee Vox Populi xëy xamal ne moom Abdoulaye Wade donte sax démb ca euh, Touba ak ken kenn kenn weddiwu ko teeru nañ ko waaye ku am seetlu dëgg war a xam ne lu bari la ma amoon ca Touba ma koy ñàkk ndànk-ndànk ndax benn mooy ba mu demee tijji luñ ko buntu jumaa ja ñaareel ba mooy xalif général des Mourides Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké recevoir gu ko beneen bi ci topp mooy résidence Khadim Rassoul gi Abdoulaye Wade doon faral di dal ba mu demee daa fekk ñu tëj buntu ya feneen lañ ko boobee mu di Abdoulaye Wade ak la nga xamante ne ji baaxle na ko ci Touba démb ak lam fa bonle bokk na ci fañu ko dalal bokk na te ci dellu mi nga xamante ji ñoom ñoo ko euh, daloon waa Benno Bokk Yaakaar observateur nañu ñoom it diwaanu Matam daanaka ñoo ko moom ndax meeting boo xamante ji Benno Bokk Yaakaar doon na ko fa def ci njiital Mouhamed Ibn Abdallah Dionne mi euh, tête de liste euh, bu coalition Benno Bokk Yaakaar le soleil national xëye kàddu yi bawoo ci tête de liste Benno Bokk Yaakaar mu di Mouhamed Ibn Abdallah Dionne muy xamle juróom-ñeenti milliards ak euh, ñaari téeméeri millions yoo xam ne dinañ ko dugal ci diwaanu Matam ngir xeex wàllu inondation direct info ñëw ak ñun ci ñaar ñi le mu di Abdoulaye Wade ak Abdallah Dionne li mu gis mooy jamono ji législatif yi coow leeg li muy bari bari ñoom ñaar ñoo fa ñoo fi teg tànk ñoom la ñëpp di waxtaane jamono ji Wade moom dafa dem sax ba suul opposition bi enquête dina kay ñëw ci moom bile mbir méga meeting bi nga xam ne PM doon na ko def ca Matam ak visite bi Abdoulaye Wade doon amal fële ca diwaanu Touba yéen kaay bi nañu démonstration de force moom la ñu def ndax kenn ku nekk wane nga sa bopp las gis ci duel à distance ci diggante Wade ak ki nga xamante ne ji moo di Boun Dionne maître Nafissatou Diop Cissé xëy tontu Idrissa Seck ci xët mu njëkku libération moom notaire bi ndax ki nga xamante ne ji mooy Idrissa Seck dafa waxoon ne Macky Sall vision weesuwul jam ñaajo li ko Nafi Diop tontu moo di moom Idrissa Seck vision weesuwul suite yu hôtel Saint James ya nekk bitim réew ñu nu des ci réew mi ak euh, li xew ca Koutal Pape mbir mu doy waar jamono ji ñuy lijjante épreuve bac yi fuite yeeg am naag amul am na beneen fuite bu gën garaaw ndax kii président jury la boo xamante ne ji euh, dañu ko bett ci otoom moom ak benn euh, candidate au ñuy def naka sudul noonu Pape. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mu nekkoon revue de presse bi replay bi mën ngeen ko am ci YouTube bi slash t